c'est-à-dire c'est-à-dire euh, man man bu ñu arrêté ñenn ñi damay foog ne ndax damay damay foog ne ndax xëy na waaye jàppeewuñu leen lii rek xëy na am na leneen après je me suis demandé kii bi def mais heureusement que tu as recouvré la liberté mais tu es sous en liberté provisoire. bon liberté provisoire oui comme beaucoup ah. waa léegi yow le 25 ngeen ne da ngeen di dem seeti Ousmane Sonko. ça c'est une initiative de Yewwi Askan Wi donc yow doo ci dem. Euh, si incha allah je pense que bu ma kiiwee Yewwi Askan Wi il faut dire que mooy euh, vraiment la coalition les alliés politiques. da ngay dem de de Macky Sall de de Ousmane Sonko ñoom ñoo jël initiative boobu mais pourquoi est-ce que nit warul mën a dem seeti Ousmane yow ministre de la justice toog na fi nga laaj ko. luy ndeyu euh, ñu tëj Ousmane Sonko noonu mënul dem mënul dikk te amul kayit bu ko firnde il n'a pas pu répondre pour convaincre les Sénégalais mais euh, Aliou avoir été arrêté pour les pour non, ces ma là après nga bëgg a delluwaat pour les mêmes faits da may déglu da nga may déglu dans l'absolu amut fenn amut benn décision de justice le fait que Ousmane Sonko un opposant sénégalais ñu tënk ko foofu il peut pas avoir accès à ses avocats il peut pas avoir accès chef de protocole sax il paraît que ci bu mujj xaw ma ndax c'est vérifié ou pas mais teguwul ci dëgg léegi li nga xamante ne décision bi nga am teguwul ci dëgg léegi comment est-ce que ay citoyens yi nga xamante ni ils sont épris de démocratie de de wala ay citoyens avertis debout. mais mais nan la ñuy. non mais, mais, donc cette initiative de Yewwi Askan Wi. vous allez en tant une entité bi nga xamante ni c'est des alliés politiques de première heure de Ousmane Sonko moi cette initiative là je la comprends te bu ma amee jot incha allah le vingt cinq dina di nga dem waaw te bépp sénégalais bu mën a dem. d'accord.